jax làmb ji tëjoon na ubbi woon nañ ko comme niñ ko waxee woon ajoon nañ ko sax la ñuy wax aji waaye man dama naan tëj la parce que làmb li comme à partir de 31 août euh, safra 31 juillet fa la daan tëjee août septembre da daan tëj buy ubbi octobre lañ daan wax ak nofembre jëm décembre yaa ngi dégg kon mois de octobre la lamb ji war a ubbiwaat bi mu ubbee yaakaar naa ne bokk nga si promoteur yi war a njëkk a tëgg mais làmb ji ngay tëgg moom moo di lambi simple le 3 octobre ci arène Iba jóob Diop loolu loo ci wax sénégalais yi. ah ñu def nañ daan def rek préparé ñi may njëkk a waxal mooy mbër yi parce que souvent dañ daan tëj làmb mbër yi dem ci àll bi béy ji ñi def leneen ñi defi leneen di préparé pour bu ubbee ñu préparé ñëw da daan ubbi premier octobre. ba 31 octobre doo gis dara am parce que mbër yaa ngi ci àll bi di defaru di préparer di takku xam nga làmb moom dafa laaj ay mystique alors boo xoolee depuis daaw la affaire yi changé un peu man maa bousculé xaw ko changé tuuti ndax dama leen teel a forcer ay mise ñu obligé bàyyi seen ay yenn ñu daan def ñëw pour am xaalis donc noonu la demee quoi léegi nag ren euh, dafa particulier waat encore dem nañ ba mu yàgg làmb ji des un mois xaw ma cinq semaines ñu yeewu fi arrêté làmb ji bàyyi gars yi di football def yu kenn xelal vraiment mën daal comprendre ma ko mënoon nañ bàyyi ñu eggali saison bi def distanciation bu ñu tegee fii kii teg fii nii arène bi yooyu attan na ko mu jeex ñu xam ne jeex na bon arrêté nañ ko pour ñoom ñoo xam seen ay raison ne pour affaire feebar bi la toog nañ ba mu yàgg gis nga ne ma leen attaqué woon ci affaire vaccination bi CNG def ay ay ay jéegoom monter vaccination c'est très bien léegi nag ñu ne dañuy ubbiwaat pour compléter dañ la manqué woon la ñu wàññi woon la ñuy fay loolu la ñu wax diggante octobre jëm décembre 31 décembre ña nga xam ne amoon nañ date cinq semaines yooyu ñooñu la ñuy fay keneen bokku si ku si dugg ñële dañ jël ba pare loolu moo tax ñu démarré waat bi ñu waxee loolu woo réunion woo ñi nga xam ne ñoo jëloon pour ñu tànnaat mais kenn du génn décembre 31 décembre lépp day am diggante fii ba 31 décembre noonu la demee bi ñu woowee ñun ñëpp ñu tànn dañuy ñu tànnee man ba ñuy arrêté une semaine moom ma desoon pour ma tëgg sama gala 5 millions ba Iba Mar Diop premier août laa ko waroon tëgg ñoom ñu tànn woo ma ma tànn comme man pare woon naa pour tëgg sama galaa ma ne bon ñu ne léegi dañuy def spécialement suñu suñu ubbee a partir du 15 septembre bien que premier octobre la ñuy ubbi à partir du 15 septembre CNG day commencé liggéey pour ñu bëgg a renouveler licence te licence yooyu il faut ñu wax ci parce que dañu décider ñoom que ñi nga xam ne ñoo impacté woon maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ jëloon seen ay combat ñu war a tëgg août bi ak fin juillet bi ñooñu nee nañ kenn du ci fay licence ba 31 décembre bëri du ñu fay manager du ñu fay écurie du ñu fay kenn du fay ñu tourné waat ne ñun waa lutte simple dañuy fay licence bien sûr man amoon naa. amoon nga journée. amoon journée même su ma amul woon journée dafa rafetul ñun ñëpp ñuy ay mbër ay mbër di ay acteur hmm. nekk ci làmb nga dagg genn wàll gi ne ñi doo leen fay ñi dañuy fay loolu moom dafa rafetul d'abord bu ñuy wax affaire ay impacté hmm. parce que ci biir mbër yooyu am na si mbër yoo xam ne ñoom abal nañ leen abal nañ leen licence ñuy bëri jaay ay simple te enregistré nañ leen ci frappe bi am déet donc làmb yëpp benn la hmm. li rafetoon. mooy ñu ne fii ba 31 décembre may nañ leen kenn du fay à partir de janvier commencé nañ saison bu bees loolu moo rafetum loolu mooy li ma mën a dégg man mais ñoom defewuñu ko noonu ñun nag occasion bu ñu am rek dañ koy sànni wax ko nit ñi gën ko déggaat parce que lu injuste la man lu injuste du ma ci ànd mais nayaa mooy ñoom ñoo yor seen pouvoir ñoo yor seen doole bu ñu ko dindiwul tamit ah ñu liggéey li ñuy liggéey rek lu yàlla def ñu xam ne loolu léegi nag nee nañ à partir du 15 septembre na mbër yi renouveler donc normalement mbër yi war nañ commencé dem CNG ñi ñi mu intéressé ñi mu intéressé war a bëre bëgg a bëre ñooñu war nañ commencé dem di renouveler ndax man sama gala maa ngi ko programme bu soobee yàlla lu trois octobre di premier dimanche mois d' octobre bu ñu ubbee xam premier la ñuy ubbi léegi le 3 normalement man maa war a gën a maa war a jëkk a tëgg bu soobee yàlla donc mbër yi maa ngi leen di lancer un appel pour ñi nga xam ne ñëpp bëgg nañ bëre. nañ teel dem bindu ji seen licence yi renouveler ko pour le 3 ci biir renouvellement boobu aussi y a un problème parce que dañ ne mbër yi nga xam dañ bokk affilié ci écurie il faut écurie bi ñëw renouveler la lutte simple dafa am ay mbër yoo xam ne libre lañ nekk ak ñoom dañ bokk ci écurie boo secret bi ñëwul affilié mbër mi du mën a am licence. nu muy renouveler licence te gannaalu écurie yi ñu ne yéen a ngi bokkoon fële may nañ leen donc affaire bi dafa jaxasoo mënoon nañ ko simplifier rek. voilà loolu yëpp ñu ngi ciy discuter ma man du ma bàyyi mais bon en attendant ñi mën a renouveler am simple ah nañ dem renouveler parce que seen liggéey la aussi mbër day wut si xaalis ci biir compétition bi day wut si xaalis donc comme seen liggéey taxawal nañ leen le 3 millions du ay caaxaan te du le 3 kese la 3 damay teg 3 millions le 10 ma tegaat 3 millions ñaari date laa une semaine la si si si huit jours nga am 6 millions xaalis. voilà kon nag nañu farlu dem entraîné ji préparé dem renouveler seen leçon ñoo préparé ñoo jël seen wërsëg. le 10 boobu fan nga koy defe le 10 gaal gi laa ko téye parce que Ibamar am na ñu fay def benn show defe na waaw incha allah gaal gi waaw fa lañ ko réservé waaw. dafa mel ni tamit su la déggee après le trois après loolu dafa mel ni keroog for naa ci wéwu béy ka Jax dafa fas def benn journée boo xam ne nii pour jàppale ci mbayan lum la tudd wala yu mel ni ki noonu daal loolu am na wala. si si si Mbaye lu mu façon dafa comme ni nga doon wax ci paay rek mm-hmm. am na problème ci tànk yi mm-hmm. amul moyen bu mu ko def fajee comme il faut li mu ci mënoon ci doole bi ko yàlla may def na ko si mu ngi ci difficulté am ñu xalaatal ko ak moom ne war nañ def SOS pour ñu jàppale ko ñoom niñ ko xalaatee ñoom man contacté wu ñu ma si def li ñuy def dem ne ay tànkam ci réseau sociaux yi man ànduma ci loolu loolu dafa rafetu nit day suturaal boppam. buñ ko biñ ko wane noonu pour yow àndoo ci daal. ànduma si. vidéo boobu waruñu ko def hmm. waaw Mbaye Ngaloum bu ñëwee Dakar jàkk sa tax man maa ko indi fii lu mu munti def war na ma woo ba mu koy indi boobu waykat cinquante mille francs extra nañ ko fay ko tey maa ko yóbbu ba ñuy fay ko cent cinquante mille ak kat kon xam nga man ñaanee ma leen bëgg naa ñu am am déet boo amee lu mel noonu am difficulté dangay woo say nit. mais est-ce que dafa sonnoon rek dem ba sonn tax mu def loolu wala ñoo ko jël bëgg koo ne pour ñu jàppale ko est-ce que ñu def ko. loolu xaw yi sutura la façon bi ñu ko xalaatee ñoom wane pour jàppale la mais xaw yi sutura la nit du xaw yi suturaam waxal ak ñi nga war a waxal yëpp man du ma nit koo xam ne euh, euh, damay wax ak ñoom lu bari non man damay woo su ma waree tëgg woo leen wala ma wax du ñaan ma woo leen ñëw tëgg. mais am na fu ñu nekk sama xol dégg wax ji donc yu mel noonu bu amee lu sérieux da ngay wax ak ñi nga war a waxal alors bi ma gisee video bi dama xool départ bi gis affaire bi rek sama yaram daw ma arrêté ko ba léegi seetaanuma vidéo bi ma woo ñaan ne ko yéen yéen a kii mu def lii mu ne moom bokk si non non ay nit ñëw kii bon def nañ loolu ma ne ko rafetul li ñu def te du faj dara nii laa ko waxee ne ko man du ma si cotiser te liñ koy cotiser du ko fajal dara te Sénégal yëpp dinañ ko xamal ba pare ku nekk war si sànni benn ñetti dërëmam te du mat dara toog di leen seetaan la preuve animu ba léegi problème yaa ngi fa bi ma nee ba xalaat ba toog ma ne du ñaan ñëwal mu ñëw moo woo Ablaye Diop ne ko ut leen date Adrien Senghor pour Mbayang Loum mu ne ma leen ma ne ko man maa koy tëggal làmb man làmb ji muy liggéey da ci bégal nit ñi nañ ko fa liggéeyal mu am lu mu fajo mën na ne man xam naa loolu ñu d'accord si loolu ma bàyyi leen ñoom ñu koy diriger keroog bi ñu leen woowee Adrien Senghor gisuma dara évoluer ci affaire bi ma demal sama bopp yëg ne woo nañ leen man kenn woowu ma fa woon bokkuma ci parce que ñoom tamit ñi leen amee ameloon ñi ñu ameel date lañ doon fay bat bor. noonu la demee man ma ñëw fa taxaw ñu waxtaan ak gars yi ba ñu tànn seen ay dat ba pare ba ñu ba mu jeex ñoom ñu woo ma bi ma woowee ma toog paa na ma waa lan lan la woon ma ne ko léegi man ñaari yëf moom fi andi benn bi la. mu ne ma ñoom sax dem nañ yóbbul ko cent mille waa association bi déplacé nañ seeti ko yóbbul ko cent mille ma ne léegi li ma bëgg man mu ne waaw mu ne ko mooy ngeen jox ma benn dat boo xam ne bu excès si jàmm dañ ko siy tëggal làmb bénéfice yëpp ñu jox ko ko mu mun si faju ji te xam naa ne loolu mën na nekk ñu ne ma ban date ñu discuter ak Doudou Niane mu ne nañ jël le 27 février ñu jox ma 27 février ma fay leen ñu defal ñu reçu donc le 27 février bu soobee yàlla ma ne promoteurs yi yëpp ñooy ñëw organiser ko dama si am xàjj ak seen parce que yëfu mbay ak lum la ñun ñëpp lay woyal mais man maay fay xaalis bi yëpp maay teg mise maay def frais yëpp bu paree ñu dindi li ñu def frais calculer lépp ci géew bi balaa kenn di dem balaa final baa jàll ñu micro yi ñëw ñu ne temps lañ am ci recette temps la frais yi temps la dindi nañ ko temps moo si des defal ko ci saako ne ko am téel demal faju ji noonu lañ ko bëgg a defee si kàttanu yàlla <laughs> waaw. macha allah loolu leer na te am na solo léegi fi may jeexal ak yow mooy eh, kanta problème mu am na combat boo taxawal da ci am boo xam dafa bëri coow ca Daouda Fall Kaw Gourdin parce que problème bi mooy ñi daal ñi ngi moo initié woon benn tournoi tëggoon ci espoir yooyu ñu dem bañ jàpp ne dañu war a finaalu a ah, ñu xëy xëy ñu ne Jax moo jël combat ba mu mel ni affaire ba am na ñoo xam ne ñi dañu gis ne. Jax dafa jaay doole Idaali ñi ngi ñenn ñi gis ne est-ce que est-ce que du Idaali moo tëgg wax ji ne daal bëri na ci yow mi nga xam ne yow yaay ndey mbil gi tëgg combat bi loo ci mën a leeral. ah combat la moom moo def tournoi man est gis nga ma seetaan tournoi man yëgu ma sax tournoi yëgu ma sax tournoi am xaw ma mbër yi siy bëri ça ne man gis nga ma ci ay lamb yu bëri may seetaan ay lamb est que mës nga ma gis très rarement may gis stade may seetaan lamb bu fekkee def na tournoi. moom Idaly ñi ngi tournoi dafa am nu koy defee tournoi doo tëb rek ne man Ababacar maa ngi tëgg tournoi da ngay dem CNG ñu jox la cahier de charge nga am loo fay CNG CNG bindal la ni ñu ko war a defee mbër yi ngi ci engage yëpp signé ci mu am engagement jeex na kenn mënatu si def leneen dama laaj Fallou Ndiaye bi muy tëgg tournoi am nu mu def. laaj ko Gaston Mbengue mi doon tëgg tournoi à defe naa ñaar ñoo ñëw fi mos a tëgg tournoi moom def na ko. ok yow laa koy laaj. Ah, dama ko laaj da koy laaj promoteur bi nga xam ne moo ne moom tournoi la def ndax règle yi xam ne moom la CNG régir pour def tournoi ndax def na ko ndax respecté na règle bu respecté règle yi nit mun na jël mbërëm bu dee moom moom mbëri wax ma bu dee final la ko tuddee moom finalam la am ne Jax moo nangu sama final man nangu ma finalu kenn. man caatu daaw defal xaw ma sax mooy kan musuma ko seetaan xaw ma ko. ku la jox combat bi. déggoo li ma la man Kaaw Gourdin laa xam Kaaw Gourdin tëgg naa ko ñetti yoon kooku laa xam. xa xaw ma caatu daaw defal musuma ko dégg musuma ko xam. dama wax rek mën naa jëri man toog naa fi ñu woo ma téléphone dama jëlal booy yi ay espoir lañ dañuy booy bien lañ tëgg expliqué expliqué ma leen ay ca ñaata la ñu wax moom ma fay leen. Ah, yow dañ laa war rek ne la booy tëgg leen. li ma la man damay lijjanti ay affaire dama dégg ñu ne ci ci par rapport lire naa ko tey sax sunu làmba moom moo gën ne. sama combat yëpp boobu moo ko monter moom monter yeneen yi mu ngi préparer combat yu ndaw yi pour journée boobu man lu ma def as laaj ci bëre dóor moom mooy woo ah, grand combat bi ak bii neex na ma jël. woo na ma ne ma ñaar yi ma sama man maa seen manager man maa leen yore doo ko tëgg ñëpp nga koy coow ma ne ko ah bon mu ne ma ma ne ko ayca après ma dégg ñu ne idaal yi ñu ngi moo koy ma ne idaal lu mu moom moomul dara booy tëgg dara da ngay sécuriser sa yëf s'il n'a pas sécurisé qu'il n'a qu'à fermer sa gueule noppi moo gën mu nekk ci télé bi di wax rek. mais mais mais tam bu tëggee tournoi am ba yegg foofook ay mbërëm xëy xëy di waajal pour tegg pour yeggali tournoi am ñu jël ay mbërëm tamit kooku am na droit wax Jax. ma ne déggoo tëggoon ay zone dafa tëggoon. déglu li may yax bu baax. dama ne la bu sécuriser wul tournoi am il n'a rien du tout moom moo tuddee tournoi mais tournoi amu fa amul ay mbër yu abandonné ci biir tournoi bi dem seen yoon waxal. ah man ci li ma gisoon. parce que bëri nañ ñaari journée. doon doon xaaj euh, non bëri nañ ñaari journée de moom. amul ñu daanu daanuwaat bàyyi. kon tournoi am na fa y a rien du tout amul tournoi moom moo ko tuddee tournoi s'il n'est pas capable de paye ces gos la comme il faut na noppi parce que man li ma fay booy munu ko sept cent mille laa fay booy ku ci nekk xam man du ma nëbb samay affaire ne tëj gémmiñam te noppi te bàyyi nit ñi muy ŋàññe ci télé bi ñoo ne en affaire fii business la ñuy def sooy def business da ngay sécuriser sa business boo ko mënul sécuriser nga noppi c'est tout man lijjantiwuma ay final ñaari booy laa jël tëgg naa leen bu tombee ci final ñoom ñoo wax final man tib tëgguma final il faut que ce soit clair. mais Jax yéen en tant que ay promoteur tamit bu ñu gisee ñu ne c'est des promoteurs nangam sangam ngeen di ànd souvent ñu daan leen gis ngeen di ànd est-ce que tey buy demee nii est-ce que kon du ci nekk daal est-ce que ànd bi dëgg la. ànduma kenn man man Jax kenn laa àndalul. association laa bokk. ci ñu ko monté laa bokk fa yem. lu ma bëgg a def su ma ko yàlla mun looy dama koy def waxal est-ce que c'est clair voilà man ànduma kenn samay business laay def sama business laay def aw ma sentiment ak kenn bokkuma kenn day ak bàyyi ce soit clair net et précis combat la monté nañ ko taxaw na jeex na fay nañ mbër bu nekk avance bu bés baa ñu bëree ko bu bëggee tëgg final après bu neexee mu tëgg final man proposé nañ ma combat jël naa ko intéressé na ma tëgg naa ko ñu ngi monté yu ndaw yi proposé nañ ma Cheikh Tidiane ñaa ak euh, Kao si 2 jël naa ko ça m'intéresse. daa taxaw boobu. bien sûr jox nañ leen seen avance. proposé woon nañ ma Ndiaye Tine ak ak euh, Moustique ma joxe avance yi Tapha Tine dugg si naan dañ koy jox 500000 ma ne ko loolu du moom moo may commandé sama journée man na toppatoo combat am. moom Tapha moom Tapha si boppam. ma delloo leen ma sama avance ñu delloo ma lekk sama xaalis basta. ñu wax ma ne buggatuma combat bi man noonu laa mel de li may def dam koy def mu leer léegi ñaari journée yooyu ma ci laa yem. journée yooyu kañ la. benn bi le 4 decembre la bu soobee yàlla samedi 4 décembre beneen bi maa ngi koy demande naa bind lettre demande CNG pour premier dimanche mars. ban moo ci 4 décembre mooy caat Daouda Fall ak la kaaw. Oh, ooy ooy ñoom ñooy jëkk bëre mu jeex ñu génn voilà li si des après ay lutte simple man xam ci lutte simple bi waaw Jax kontaan naa ci yow. ah di bëgg ci yow rek mu ngi noonu ñu ngi am programme lu sem bu yaatu. mu si yàlla jàppee ah dinañ waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal. voilà premier janvier bëgg naa tëkk onze millions. onze la. waaw mu information baa ngi noonu. <laughs> loolu de laa bëgg de ma tegoon naa dix mu neex. nañ teg onze. parce que gars yi jàpp rek. foo ko bëgg tëgg fii Ndakaaru ci arène nationale. bu bu ma amoon Iba fa laa koy tëgg moo gën neex. Iba Mar nga def fa onze millions. wallaay Iba Mar moo ma gënal. waaye dafa neex dafa dafa ay Iba Mar beneen affaire la. gars yi foo ñuy tëb barrière di fecc di yéegaat. déggoo ma de. xam nga papi général nga gis ko dafa mu siifaan wa yi di ko xaar. papi sëriñ la léegi léegi sëriñ la. Ah. ak a munoon ambiance. mais kenn la. Papis général nuyu au passage moom maa koy. waaye taxaw. commencé signalé. di cafa cafal tànk bi ah non non. neexatul. Papis nekkatu fi ay ñoom ñoom le caïman de Thiaro yi bu daan def nii affaire Issa Pouye ndeysaan ah non. rëg rëg ah ak rythme bi. ah non ak ak kële ak ñoom rëg rëg. rëg moom sànni aller retour rek ah non rek rek kenn la. waaye nag gis naa ñoo xam ne ñu ngi animé nag ku mel ni Ibou Ndiaye Obali c'est un animateur. waaw Ibou Ndiaye ndaanaan la ndaanaan la maa ngi fàttaliku Adrien Senghor bi mu ko toppee ak ak micro bi moom ak moom ak général ñuy waxante keroog lamb bi ñu neex na. non Kera tamit seen seen seen seen demi-finale ba. ak Franc ñoom Serigne Ndiaye 2. macha allah booy jàmm booy ndaanaan lañ. ak booy bële nekk fële ñëwagul Dakar euh, betenti. gànja faama maa ngi naan ñëwul Dakar mos si affaire yi mu ne mu ne ci àll bi rek saf xorom beneen affaire la loolu mooy neexal làmb mhm. boo gisee lutte simple neex loolu la dafa am ay ay nit yoo xam façon yoo xam ne ci biir bu bu bu affaire bi démarré ah non ñoom Doudou Sané Doudou Sané journée wallaay wallaay ah? ak ñoom booy booy booy puy bi nekkoon mbaaw fii. zambala cëpp tànk yi non ba zambala ah, booy bi nekk fa liu coor numéro 2. coor daan cëpp ah, tànk yi rek di dox mel ni mel ni affaire yi intéressé ko. ak booy bi nekk yàlla ko yàlla génne. booy bu xees bi bébé jéen yàlla na fi mu ne. bébé jéen koy nuyu di ko si xale bu am talent. voilà champion yaa ngi noonu. ñun loolu moo ñu neex. Mm-hmm, voilà on a plein de journées mais daal ñaan leen si rek 11 millions bi yàlla mun ko taxawal Pël Fuuta yi ñoo jël Iba pël Fuuta yi ñoo fa jël xam nga rek Guinée <laughs> ñëw nañ coloniser suñu dëkk bi stade bi ñu war a dóore ñoom ñu jël ko naan dañuy show ah non loo ci mën. waaw ah, mais dañ leen di xajal rek comme seen dëkk tamit yaa ma gën a xam dafa bëri yëngu-yëngu. ñu fa jiitu daal yi coup ak yu kenn xamul am na ñu koy ñaawlu. yàgg nañ show premier janvier de dañuy jëli seen genre Youssou Ndour bi ne foofu. andi ko fii fees dell Iba Mar <laughs> ñetti at ñu ngi koy doxal ma cinq ans am na benn année. Euh, ndeysaan maa ngi nuyu Abdou Khadir sax mi nekkoon stade daf daf leen complot woon ndeysaan pour rek ñu may ma mën tëgg fa premier janvier gars yi tëgg 31 de nañuy tëggaat premier ñu tëgg ba pare ñun ñu dugal suuf bëre suñu mboppat ba pare ñoom ñu ñëw tëggaat encore tu t'imagines ne non suuf si ba nañ ko bàyyi noonu ñoom nañ nañ show ci kaw danañ fecc ci kaw suuf si. mais man pour man jàpp naa sax war nañu mën a suuf foofu bés boobu nga tëgg fa làmb de. waaw mais bon comme ñoom tànn nañ ko. man de foofu moo ma gën a doon mais nag nañ ko yóbbu arène nationale naa bind lettre en fait arène nationale bi sax mu ngi ci biir programme bi mhm. donc comme premier janvier la ci biir programme bi génnagul mhm. donc naa leen bind laaj ba xam suñ ma ko mën a jox waaw ñu def onze millions. mbaa 15 mbaa 15. Ah. solo kontaan 15 <laughs> moom boo ko defee moom xam naa rëg rëg danaan day damay damay bëri si ah, <laughs> maa leen di gërëm di leen sant vraiment rafet na comme ni ngeen ko daan defee rek yàlla yàlla jàppale leen gën a yokk mbir mi daal. ba mu gën a kawe may leen doole aussi may leen wér parce que ay xale ngeen voilà na ngeen continuer rek liggéey mhm. yàlla mooy maye bu mhm. leen xool gauche bu leen xool droite mhm. continuer leen ci li ngeen nekk rek wërsëg moom dangay daf nit ki si yoon bi rek di la muy egsi di dugg voilà bul xool gauche bul xool droite voilà nekk leen ci jàmm waaw kontaan ci yow jaajëf kon gaa yi dégg ngeen ko Jackson ah, la mu nar wax na ko ci làmb simple ji le 3 kon nañ ko waajal waaye tamit yaakaar naa ne le 2 ki ñuy wax góor góorgóorlu production teg na un million ci Adrien Senghor loolu lépp di luy duy doxal làmb waaye bu bët setee defe naa kon bu ñu demee Ibamar fekk fa 3 millions ak la mu war a àndal macha allah dina neex loolu ndax fu mu moo ngoom nekk mbéyang lum ne fa day ma day neex rek di leen jox dig daje rek beneen yoon incha allah rabbi ci Equivox TV.